Nous nak euh, dernier jour parce que demb lañ commencé def atelier bi euh, def lu ñuy wax la affaire yi en termes de de de de climat Nous avons ñu def ko Nous won ko ak outil du climat Nous xamné 45 images la yo xamné dañ ko rapport e e groupe d'experts réfléchir climat Nous partagé ak ñom comprendre.

ñu ne ah dañ bëgg nañu Rufisque bo xamné industrie yu fi nek seen pollution dañ koy wañi ñu ne ah ñu Rufisque bi ñu bëgg mom moy transport bi gëna a baax gën a fluide dem beeg dikkalante bi gëna neex té du am ay émission de gaz à effet de serre yo xamné day yak environnement bi ñu ne ah bëgg nañu Rufisque bo xamné day am aussi euh, lu ñuy wax euh, agriculture urbaine nit ñi di bay di dundé pour mëna wañi wàññi euh, lu ñuy wax famine ndol donc li dal mom moom lañ defon ce matin buñu paré ci lool nak ñu xol ay ay ay points yoo xam ne dafa am solo yoo xam ne il faut ñu taxaw ci benn bi moom mooy wàllu dem bay dikk bi benn bi moom mooy wàllu industrie benn bi moom mooy lan mooy ville verte ñu réfléchir nag ku nekk joxe si sa xalaat ñu ne ah ville verte moom mooy ville boo xam ne euh, industrie yi du ñu polluer lu bëri ñi ne ville verte moom mooy dafay am agriculture urbaine ñi ne ville verte moom mooy ville boo xam ne euh, day day éclairé daa am éclairage bu baax nit ñi di mën a dem di dikk

dañoo leen doon jox affaire bi pour ñu outil bi pour ñoom ñu mën a taxaw am taxawaay bu baax pour seen plan climat bu ñu war a defar waaw donc lii lii daal moom moo doon liñ doon xaar.